askan wi yeewoo kër Cheikh Ibrahima Fall ca Njaareem ñoom nag mer nañu lool rawatina ki nga xam ne moo di njiitu réew mi di président Macky Sall seen mer moom leen sax moom moo leen poussé ba ñu def am ndaje ak taskatul xibaar yi ngir daal di fësal jafe-jafe yi nga xam ne ni jamono ji ñu ngi ko dund ci autoroute Ila Touba kër Cheikh Ibrahima Fall di ab quartier ca biir Njaareem te autoroute bi daal di fay jaar lu mat fukki kilomètre ak juróom te yoon wi nga xam ne moom moo jege biir Njaareem jëm ci autoroute Ila Touba bi daal di jaar ci bile quartier te jamono ji fukki ak juróom yooyu bën a gën ab rang-rang la askan wax di fësal jamono ji bennum gànjar bi nga xamante ni moom moo am foofalee ca quartier maam Cheikh Ibrahima Fall muy jumaa ji nga xam ne lañ ko fa tabaxal daanaka kenn mënatu faa julli ndax poussière bi nga xam ne ni moom mooy jollee ca rang-rang boobu lee di dugg ca biir jumaa ja bu loolu wéyee ñu jàpp ne li nga xam ne moom moo di poussière biy jóge ci rang-rang boobu lee mën naa andil ay jafe-jafe askan wa nga xam ne ñoom ñoo dundee foofulee ca quartier maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mën na leen a andil ay jàngoro yi nga xam ne nii jàngoro jën la tey jóge ci poussière boobulee ñoom askan wa di fësal ne jigéen ña sax jamono ji bu ñuy fóoti dañuy dem ci yeneen quartier ya ngir jàpp ne yére ya nga xamante ni moom la ñuy fóotu poussière boobu le da koy daal di taxalaat ci saasi lii la jafe-jafe nag ñu jàpp ni autorité yi dañ ci am lool ak yeexaay goo xam ne nii am ko ca ba ñu di baare yoon ko def itam koy dund jamono ji ci autoroute Ila Touba ba Sénégal daal leen ko mën a teggil soxna Mbodja Ndiaye di kenn ci ñi yoroon seen kàddu di fësal ne fukki kilomètre ak juróom yooyu le nguur gi daa war gaaw daal di koy def ab tali bu ñuul kukku ngir jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkonteel foofu la ca kër maam Cheikh Ibrahima Fall ca njaareem ñoom kan wa di fësal ne tey la ñu gën a taxaw ngir xeex li ni mel ngir yeexaay bi nga xam ne ni nemmeeku nañu ko ci liggéey yi ñu daal di koy mën a saafara